réew Rewmi 24 TV jaajëfal nañu leen bu baax ci ànd bi ak topp bi nga xamante ne rek yéen a ñu koy topp ci site internet bi di réew mi 24 TV li gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañu koy doo rek kii di Ousmane Diagne jëwriñ bi ñu dénk wàllum justice nag daal dinay def desantam foofa ca camp pénal ci situation contrôle bi nga xamante ne rek doon na fa am moom ministre bi ñu dénk wàllum justice nag di Ousmane Diagne moom ci jëmmi boppam rek moom moo demal boppam foofa ca camp pénal ginnaaw ay minute rek dañu nemmeekoon xeex bu metti doon dox ci diggante prisonniers yi ak garde pénitentiaire pénitentiaire yi ñoom nag moom ci jëmi boppam rek ca la dem ca boobule bërëb nag ba jamono ji ñu wax boobule bërëb mu ngi ca sous contrôle ba tey bu ñu jógee ko foofu nag dañuy addu rek wax ci li nga xamante ne rek moom mooy ba tey rek foofa ca camp pénal bu Liberté 6 ginnaaw nag bi ñu doon fuyete li nga xamante ne rek moom mooy néeg yi moom moo mujjee ci xeex bu métti métti ci diggante nag ñii di détenu yi ak ñi nga xamante ne rek ñoom ñooy surveillant yi mu nekkoon xeex boo xamante ne rek xeex bu doy waar la nemmeeku nañ ci sax ay grenade lacrymogène ak ay coup de feu yoo xamante ne rek doon nañu ko tiré ca boobulee bërëb bu ñu jógee ko foofu nag dañuy àddu ne rek daal dinay fësal nag ab communiqué niki tey moo fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin ci atum 2024 ci travaux réparation bi nga xamante ne rek doon na ko amal ci ndox mi nga xamante ne rek moom mooy daal di sànni foofa ca lac de Guiers Sen'Eau ci jëmmi boppam rek ma ngay daal di xam ne liggéey bi nag dinañu ko door ngir réparer rek fuite bi am waaye nag dina laal rek ay nit dina laal ay gox yoo xamante ne rek ñàkkum ndox ma dañ ko fa nemmeeku ndax nag addiction construction bi nekk ci Lac de Guiers 2 ci numéro 2 bi ci hauteur bi dafa am beneen pont boo xamante ne rek moom moo nekk côté front de terre waaye nag yëf yi rek mën na am ay perturbation yoo xamante ne rek dinañu ko nemmeeku ci journée tey ji jàpp samedi journée ajjuma ñaar fukki fan ak benn jàpp samedi ñaar fukki fan ak ñaar ci fi nga xamante ne rek moom mooy Dakar ville rawatina nag ci zone périmétrique fu ci mel ni Yoff village aéroport ak Yoff Mamel Wakam Almadi Ngor Mermoz Kër Gorgui Sacré E amitié Sicap 10 euh, Grand Dakar Liberté et Dieuppeul Derklé HLM ñaari tali et benn tali zone A zone B plateau Médina Fass Colobane Gueule Tapée Jules Blata Yaraax Mariste zone de captage Arafat Xaar Yàlla bu dee nag ci côté eh, zone Rufisque ak Sangalkam ne nañ nag ñu jël seeni matukaay rawatina nag camion si tax na yi dinañ leen ko indil rek ngir mu mën leen a bu baax nag ndox mi ne nañ rek retour bi nag jàpp nañ ko rek ni ki dimanche yi mook ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ci atum 2024 bi seen woo nag ma ngay jaay jaajëfal rek nit ñi ci compréhension bi nga xamante ne am nañ ko waaye nak ci dog-dog yi ak rëq-rëq yi nga xamante ne rek liggéey bi ñuy liggéey nag moom moo ko daal di waral jërë ngeen jëf ci ànd bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification yi ngir dara bañ leen raw